Euh, euh, tàggat yaram ak euh, Mamadou Ndiaye njëkkee Ligue des champions ak génération foot ak taxawaayam. Mhm, effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee taxawaay bu am solo la am fële démb ci Caire. Mhm. mën nañ seetaan élément bi nga xamante ni Cheikh Tidiane Diaw actuellement ma nga Caire defal ñu fa démb qualification bi nga xamante ni génération foot amal na ko démb mën nañ seetaan élément bi di ñëwaat ci plateau bi. tey dama am mbégte mbégte bi mooy li xale yi def tey tey wane nañu euh, jom wane nañu ko dafa mel ni tey joué nañu plus de quatre ans Ligue de champion loolu nag euh, li ko waral mooy liggéey bi ñuy def et puis match aller bi bi ñu xam ne gagné nañ ko Dakar 2-0 ñëw tey euh, wuti qualification au Caire loolu mooy historique bi et vraiment man kontaan naa pour ñëpp pour déni supporters yi peuple bi ñu ñu jàppale près ñaan nag aussi autorités yi lépp lu ñu war a gën a mën a jàppale ñu jàppale ñu ko parce que soxla nañ ko parce que tey Sénégal lañu ñuy représenté ci wàllu boobu ku mel ni président Ousmane Tanor Dieng jàppale nañu trop sunu président d'honneur di sunu pare aussi Youssou Ndour taxaw na ci taxawaay bu mët sëkk. et puis euh, di ñaan nag ñeneen ñi ci topp ci yeneen autorités yi ku mel ni président de la République. di ñaan mu yokk loxo taxawaayam ci ñun parce que soxla nañ ko et lu mel ni président assemblée parce que ñooñu ñëpp sollicité woon nañ leen mais yaakaar nañ ne xëy na bés bu ñu delloo Dakar dinañ wala bu ñu fa bu ñu bu leen bu ñu yegsee ak jàmm ñu woo war ñu war a mën a jàppale parce que vraiment soxla nañ ko. merci ku mel ni président de la république. di ñaan mu yokk loxo taxawaayam ci ñun parce que soxla nañ ko et lu mel ni président assemblée parce que ñoom ñëpp sollicité woon nañ leen mais yaakaar nañ ne xëy na bés ñu delloo Dakar dinañu wala bu ñu bu ñu bu leen bu ñu yegsee ak jàmm dinañu woo war war a mën a jàppale. voilà donc démb ba tey ñu ngi félicité euh, génération foot euh, ci euh, taxawaayam par rapport ak ligue boobule Mamadou Ndiaye. effectivement ñooñu ñu dégg di Madi Touré di président bu génération foot ak ki nga xamante ne mooy Talla Fall mm-hmm. de communication ci. ci club boobu di Génération Foot ñuy wax seen euh, taxawaay surtout euh, lancer appel autorités yi ñu jàppale leen bu baax. parce que mm-hmm. actuellement euh, ñi ngi def ay jaloore ndànk-ndànk. nga mm-hmm. xamante mooy compétition africaine yi. Mm-hmm. mu nekk taxawaay bu am solo bu nga xamante Génération Foot démb amal na ko ndaxte gëñ na Sénégal déplacé ñàkkul. surtout ci dëkk naar yi. mu nekk match bu jafe mën nañu seetaan élément bi nga xamante ni Cheikh Tidiane ñëwaat na ci match bestiaires yi pour jouru génération foot yi ginnaaw qualification bi. joueurs yi jàpp ni match bi métti woon na trop ak adversaire boo xam ni nanguwul la bàyyi benn yoon. waaw waaw métti woon na métti woon na mais xam parce que xamoon nañ bi ñuy ñëw xamoon nañ du yomb mais ci li ñu daj coono bi ñuy daj il faut que yàlla defal ñu dara parce àdduna bi ñaar moo si nekk soit da daj lu métti. am li nga bëgg wala doo def lu métti doo am li nga bëgg ñun nag dañoo accepté tey tey daj lu métti pour am li ñu bëgg te yàlla may nañu loolu incha allah. def nañ lu nekk mais sant yàlla bu baax métti woon na trop métti woon na trop a été fait te di gërëm gars yi di gërëm sénégalais yi lu ñu leen waxoon gën leen ñaanal gën leen ñaanal parce que ñun gëm nañ ni mun nañ dem match de te incha soo leen ñu ñaanale xol yëpp booloo gëm nañ incha allah nañ dem match de académiciens yi wane lu ñu leen touche était très difficile parce qu'on était vraiment acculé et quand on récupérait le ballon on n'arrivait pas à jouer du tout. On précipitait nos relances et vraiment on était acculé pendant une heure et demie pratiquement sur notre but. ci de touche bi métti woon na toog ci man. dañoo acculé woon euh, ba suñu jotee bal bi duñu mën a génn daanaka match bi yëpp muy loo xam ni tàmmuñu ko yaakaar naa ni sax euh, guléet may dund match bu mel nii ak sama équipe bég naa ci ñoom trop nag joué nañu ak seeni xel ak tamit taxawaay bu mat sëkk moytu centre yi ak faute yi gàcce ngalaam xale yi ñaari match tey jii dox ci diggante génération foot ak phase de poule la Ligue africaine des champions tey jii muy euh, bëgg-bëgg. voilà Cheikh Tidiane Diawo moo ñu teewaloon foofu di. Euh, Égypte euh, fekkee woon match boobu la nga xamee ni Sénégal yëpp rafetlu taxawaayu génération foot. waaw Sénégal yëpp vraiment rafetlu nañu taxawaayu génération foot mu qualifié ci tour préliminaire bi nga xamante ni. Mm. prochain tour bi ñu ngi fas yéene jàkkaarloo ñii di waa Horoya bu Guinée. Mm. ñu leen di ñaanalaat ñu continuer parcours bi ba dem match de poule phase de poule yi ndax loolu la ñuy xaar ci club sénégalais yi. Mm-hmm. parce que nekk champion daf ko mën a ci taxawaay ci fii ci tundu Afrique bi. mu ngoog et puis euh, Mbour Petite dañ ko éliminé démb euh, ci stade Caroline Faye euh, face ak RS Berkane bu Maroc. effectivement démb loolu coupe des confédérations la mooy bu coupe CAF nga xamante ni ci tour préliminaire yi Mbour Petite Côte démb maa ngi woon ci match ba dañ leen daan daanoon match aller bi 2 buts à 1 match retour bi 1-0 rek lañ soxla woon te pourtant Mbour Petite Côte moo mënee woon 1 but à 0 ba ci avant match bee jeex ci deuxième période bi la ñii di waa Berkane RS Berkane daal di égaliser résultat boo xamante ni arrangé wu Euh, donc mën nañ jàpp ni Mbour Petite Côte euh, éliminé nañ ko ci coupe CAF bi Pape Cheikh mu ngoog et euh, on finit ak euh, ce qui s'est passé hier sportif yi nga xam ne ni euh, ña nga woon ak président wu France euh, Georges président wu euh, j'allais dire États-Unis mais Libéria <laughs> Mbappé Drogba ak président wu FIFA ñoom ñëpp dajale woon ca fi nga xam ne ni mooy palais wu France pour waxtaane développement wu sport. effectivement surtout bu Afrique. ci Afrique ndaxte trois grands attaquants yi nga xamante ni ñu ràññeeku la ku ci mel ni Didier Drogba Mbappé mi nga xamante ni mën nañu jàpp di xew. Mhm. Euh, nekk ci Paris Saint-Germain am ay origine africaine. Ah. Euh, bu ñu fàttali bu ñu xawle bu baax ni papaam camerounais camerounais la. Mhm. kii di yaayam di algérienne moom nga xamante ni di Mbappé moo tax ñu invité ko fële ca Élysée mu teewee ko ak ki nga xamante ni mooy président bu Libéria di George Weah nga xamante ni euh, mën nañu jàpp ni visite officielle yi nga xamante ni def na ko à l'extérieur par exemple en dehors du continent amal na ko fële ca France mu nekk ndaje bu nga xamante ni dañ doon waxtaanee football pour rek fii ci Afrique ndaxte Euh, mën na nekk li nga xamante ni dina soxal bu baax euh, Afrique surtout ndaw yi ki nga xamante ni aussi moo jiite FIFA di Gianni Infantino moom li mu li mu joxe comme xibaar moo di euh, fas yéene ne teg ci table lu toll ci 15 millions d'euros yoo xamante pour formation petite catégorie fii ci Afrique. voilà donc tout le monde a salué cette rencontre bi amoon entre sportif yooyu ak ki nga xam ne ni mooy président wu France donc ñoom pare nañu pour teg ay plateforme yoo bu Afrique waxtaan boobu ma nga amee woon démb ca dëkk bu ñu naan France Élysée foofee seen président nekk ñoom waa France et puis encore on encourage euh, Georges Weah on l'aime parce que c'est sportif mais on l'aime aussi parce que dafa bëgg dëkkam il est devenu euh, président comme il le présente ñoom waa France enfant de la rue euh, <laughs> footballeur ba nekk président de la République comme quoi dara jombul kenn donc ñoom dañuy def fierté bu continent bi merci muy yëngatu bu baax ci football bi mais mm. surtout ci wa petite catégorie na xam nañ ne Afrique football baax a baax centre de formation yi teel leen mhm. formé ndaxte moom bu ñu xoolee doomam mi actuellement mi ngi ci centre bi nga xamante mooy mhm. Paris saint bi nga mhm. xamante euh, fa la fa lay évoluer actuellement mi ngi ci U18 yi donc euh, footballu Afrique daal comme ni nga waxee rek Pape Cheikh ci xale yi lay jaar donc petite catégorie am na lu nekk na lu am solo euh, a